professeur Songué ñu ngi lay nuyu gërëm la ci sa teewaay tey jii ci yeewu leen bi ni altine bu jot ci pàcc bi ñu tuddee euh, xam-xam euh, savoir ak euh, yow mile gërëm la bu baax mbaa bëñ baa ngi tane. waaw bëñ bi sedd na alhamdulilah mais bëñ bi tane dégg naa ànd na wax ju bëri de professeur. waaw mais jàkkaarloo ak leen di yeewu leen quand te bëñ bi gën a gën a accéléré quoi sant yàlla xam naa say ñaan moo tax <laughs> macha allah tey jii dañuy waxtaane d'abord balaa ñuy ñëw ci suñu diineek réew meek ni ñu ciy demee mm-hmm. ak euh, yenn ci ay gëm-gëm yoo xamante ne jàpp nañu ni euh, du gëm-gëm mm-hmm. ñu njëkkee li ñu tuddee coup d'état militaire mm-hmm. est-ce que du loolu mooy signifier échec bu suñu classe politique yi bërki Dembo Ndiaye ñu ngi ñuy wax euh, la am ci Burkina Faso tey ji ci suba gi ci Café Info indi nañ ci ay leeral ak gindiku ak kii di Abdoulaye Der mais coup d'état yooyu ne yooyu le euh, mooy signifier échec bu suñu ay dirigeants. waaw ni nga ko waxee noonu la parce que coup d'état militaire fu mu amee ça veut dire que quelque part la classe politique a échoué. te boo ko seetloo Pape suñu classe politique bi amul benn sens de l'initiative boo seetlee coppite yi fi am maanaam les révolutions yi fi am en Afrique yëpp Sénégal par exemple ci à ou trois cent la gars wax mais ba réew mi soxlaa kan moo tax am c'est le peuple lui-même c'est la société civile tu te demandes où sont ces partis politiques là yi nga xam ne ils vivent sur le dos du contribuable bu élection jotee nga def ay ay ci ay confection ay ma adjoint amul benn politicien bu mën a taxaw rek ko mm-hmm. amul benn organisation politique mën a taxaw revendiquer ko mm-hmm. juin victoire u kan la victoire u peuple sénégalais mm-hmm. nga dem ca Burkina Faso bi ñuy wax te ñu ñoon ko bay passé la dernière fois bi Blaise Compaoré dem il y a des partis politiques mais il a régné d'une main de fer et de maître pendant 27 ans ci bi tu te demandes où était cette classe politique là ñan ñoo ko fa jëlee ñi nga xam pendant vingt sept di ko fa jëlee mhm. li ci am mooy donc peuple yi ñoom ñooy organiser régler seen compte avec leur jeunesse avant-gardiste mhm. mais malheureusement bu ñu mhm. ko récupérer daloo li nga xam ne moo fi nekkoon li am Burkina Faso dafa leer pourquoi dafa leer parce que peuple bi jóg na dàq na fi diw mais xam nga peuple bi dem du diriger boppam pam bu peuple bi paree da koy jox ñi nga xam ne ñoom ñooy politique justement politique yi bu ñu ñëwee ils ont échoué l'armée revienne encore pour prendre véritablement le pouvoir boo ko jëlaatee encore joxaat ko politiciens yi ñu naxsaayal réew mi ainsi de suite de suite ainsi de suite moo tax finalement dina xaw a doy waar moo tax man la d'accord naa yow ne coup d'état militaire yi ngay gis nii ça ne fait symboliser l'échec de la classe politique xoolal ñoom Macky Sall ba ñuy négocier ci hôtel ba ñan ñoo ñëw taxaw nekk les avant-gardes c'est société civile posé wu. Mhm. mooy lan lañu floraison de parti politique yi jë jëriñ. Mhm. yaa ngi fàttaleku paa boobu ñu tey saan xalifa moo ko doon nettali. Mhm. nee na mu toog ba mu yàgg naan indépendance kañ lay jeex. ça veut dire que le seul miracle que ces hommes politiques là ont réaliser. c'est de nous regretter malheureusement. notre indépendance. donc finalement lu sotti am borom ci ñoom ñu rëy làmmiñ ñi parce que finalement ñoom rek la dégg ñuy wax mhm. bu mbir yi demee ba sotti ñooy nekk ci rajo yi mhm. nekk ci télé yi mhm. nekk ci jotaay yi ñoom rek ngay dégg ñuy wax ñaare ku ci di jaay ni maa la la wala wala làmmiñ absence de vision la absence de pensée incapacité à porter les changements la Pape Cheikh ah. nee la yow bu askan wi soxlaa kenn rek la wu ko jee bul dem fenn bu ñu dem ci réewu jaabur suñu réew mi fii bañ jàppee ne am na

réinventer une nouvelle classe politique. ñu ñëwaat ci li nga wax lundi bële passé. pourtant mm-hmm. laata coup d'état bi di am ca Burkina Faso lundi bi passé wax nga ñu ko. bu donc muy loo wax la jaar jaar ba. les faits sont les faits sont les tout le monde voyait venir mais personne n'a absolument rien fait. pourquoi personne n'a absolument rien fait parce que ñi xam ne ñoo nekk ci ay cadres organisés structurés am ay récépissés muy les partis politiques ñi ko war a porter porter wuñ li muy jur mooy le peuple sort dans la rue. Mm. xoolal boo demee bu ca Guinée gële. Mm-hmm. Euh, ñu ngi régime démocratique. Mm-hmm. pendant ans bu ñu ci dictature Sékou c'est des militaires qui se sont succédé. Mm-hmm. il politique bala muy def récupérer pouvoir bi régler ay comptam dëkk bi tàkkaar peuple bi génnaat est de sud est de sud kon ñoom ñoom ñoom ñoom dañuy bëgg a dof xaw non dañu xamul leen tax a jóg rek Pape Cheikh. ah a jóg dañu xamul lan mooy seen mission dañoo mhm. xamul politicien lan moo ko war. Mhm. parce que nee naa la ñoom ñëpp boo jógee dañu naan pragmatisme. Mhm. boo jógee dañu naan réalisme boo jógee dañu naan action. mais dañuy fàtte ne une action qui n'est pas éclairée par la pensée est une action soumise au tâtonnement et la dictature simplement du hasard. donc li ñu manqué man dama lay dégg naan urgence fii urgence fee urgence fee. ma ne man d'accord naa ak benn borom xam bu ñuy wax euh, Michel Camto. Camerounais la la urgence mu en Afrique ne ko ban mu ne l'urgence de la pensée pourquoi la pensée est une urgence mu ne parce que on pense que on peut régler tous les problèmes alors qu'on oublie très souvent que tant que amuñ vision amuñ projet de société bu ñu élaboré ñu xam fu ñu jëm on passera notre temps à tâtonner et nous sommes condamnés véritablement à l'échec lu ëpp ci ay coup d'état Afrique rek la koy dégg. mais Afrique nga koy dégg parce que le rôle naturel de l'armée xam naa ne Der wax na ko. Hmm. n'est pas d'exercer le pouvoir. le rôle naturel de l'armée c'est véritablement de protéger le territoire dans son intégrité. Hmm. mais bu armée yeeg c'est symptomatique de quoi de l'échec encore une fois de ceux qui sont qui mais pour conduire le pays au développement. demal réew bu ni fii Guinée-Bissau hmm. dafay am bi nga xam ne ñii seen dañ leen ko octroyé dañ leen ko may ñii nga xam ne ba ñuy poésie ñoom ca avec la musique de leurs armes la ñu seen indépendance boobu boo xoolee différents pays africains yooyu seen trajectoire ak seen mode de gestion politique dafay répercuté wu di nga dem ci pays africains yoo xam ne armée bi jàpp na ne comme moom moo libéré comme moom moo conduire le pays à l'indépendance naturellement kenn mënu ko génne euh, ci ci gestion pouvoir politique mooy par exemple Guinée-Bissau mooy par exemple nga am yeneen yoo xam ne dañoo négocier seen indépendance comme dañoo négocier seen indépendance classe politique ba la mu jëlee ci négociation yi nga xam ne moo ñu jox suñu indépendance mooy ay deal mooy ay clan mooy ay parti programme yooyu la ñuy développé à tel que encore une fois il laisse de côté l' mm-hmm. professeur est ce que suñu organisation sous régionale yi ñu ngi joué bu baax seen rôle à l' occurrence CEDEAO Union africaine mm-hmm. est ce que ñu ngi joué bu baax seen rôle. waaw parce que crise burkinabé bi gis nañ ni euh, jël nañ ay mesures euh, euh, xaw na tane. parce que bu njëkk par exemple gis nga crise bi ba mu amee Mali mhm. du Sénégal moom moo njëkk a dem du Guinée du Gambie du Mali moo njëkk a dem ñan ñoo njëkk dem mooy les Français ñoom ñoo njëkk dem donc au moins dans la forme ci crise bi mhm. gis nañ ba mu amee mhm. CEDEAO jóg na en l'occurrence le président Macky nekk président année du Sud fii ne nous prenons des résolutions mais bu fekkee sur le plan militaire tu n'es pas capable de prendre des troupes du Sénégal du Mali d'ailleurs dajale teel leen pour ñu appliquer loolu nga teg mhm. finalement ça ne sert à absolument rien ils n'ont pas le pouvoir de décision ils n'ont pas les moyens sur le terrain de faire respecter leurs accords qu'ils sont en train de signer mhm. mais dans l'esprit et dans la forme c'est bon que ce soit en premier nous-mêmes qui nous soyons levés pour aller au Burkina Faso pour jéem a def une médiation mais très souvent cette médiation là elle ne prend pas en compte la demande est hors de question ces accords là ne nous engagent pas parce que mënuñoo nangu ab waay jël couper le processus de transition jël président jël premier ministre jël ay nangam tëj ngeen naan ci biir accord dañuy def dañ leen di baal ça veut dire quoi les chefs d'État ñu ngi ci dans une logique de masla dans une logique de deal hmm. qui ne prend pas en compte les intérêts et les aspirations de la population moo tax tous ces accords là sous un passé sous un futur très proche sont voués absolument à l'échec dinañu dinañu yéex a euh, dinañu yéex a jóg ci échec bu classe politique yu Afrique voilà donc defe naa loolu ponk bu am solo la euh, professeur Songué ñu jàll ci beneen ponk boo xamante ni soxal na Sénégalais yi fii la ñuy desandi du Afrique yëpp waaye fii ci Sénégal dañu gis ni euh, euh, diine ak askan wi ñun ak diine mhm. boo doon jàngat suñu rapport ak diine loo ñu wax professeur suñu rapport ak diine Pape rapport bu xaw a doy waar la parce que parce que c'est un rapport purement instrumental ton sourire déjà répond presque à ta propre question <laughs> ça veut dire dañ naan dëkku diw la dëkku diw la dëkku jullit la mais ni ko waaji di waxee ay petaxal la rek gars yi gëmuñu ko petaxal googu kon <laughs> euh, gëm yàlla te wóoluwuñ ko wala ñàkk ñàkk réellement dañuy dañuy fooyee diine ko a dëkku jullit lañ mën a ñuy jóg di taxaw ne ñu ngi julli parce que comme je l'ai déjà dit on peut prier mille fois sans avoir prié une seule fois ça veut dire que très souvent boo ko seetloo gars ñi religion bi mbubb mu ñuy sol la mu leen di permettre ñu régler ay problème ah. mun sëtu diw laa man doomu diw laa jarbaatu mais dans la réalité dans le vécu intense de la foi dara new fa mm-hmm. lii sénégalais gën a doon moi je dis l'un des dangers les plus graves qui guette la société sénégalaise Pape mm-hmm. ce que j'ai l'habitude d'appeler maa ngi koy wax Khalifa di Marais mu ne ko daal la xërëmisation de notre société mm-hmm. notre société ah. ah. c'est une société dans laquelle en réalité gëmuñ kii yaa mhm. amul benn mérite amul benn compétence mhm. xam nga la gis mais naan ko kat jox abonnement say cumukaay mhm. veut dire quoi on ne peut plus être compétent ça veut dire qu'on ne peut plus exceller ça veut dire quoi que soit par toi-même mais am na ay maître ay gourou tapis dans l'ombre ñoom ñooy décider du sort des gens bu kenn naxante bu ñu da ngay dem naan il faut nga <laughs> que parce que boo demee ca ministère ya boo duggee ci salle xëy na ah. ñoom bëjj na gaay yi ñu ça veut que nos rapports à la religion sont des rapports de dañ la wax dëgg yàlla euh, maam borom Touba ne la maam Baye Niass ne la maam nangam mais encore une fois ay woy la ay bàkk la ay kañ la mais jotewul dara ak li ñuy wone suñu pratique ndax mën naa ko tuddee hypocrisie envers mais c'est une véritable hypocrisie parce que en réalité boo jàqee boo jàq fooy dem dañu naan ah man de boo demee ba dëgg sàngam boo demee gis muus ma juróom ñeenteeli bëjëm wala fukki li bëjëm nopp ji dax ba boo ca jotee tànk nangama boo ca jotee nga gëm ne loolu mooy régler te yow nga am héritage réel yoo xam ne boo ci sukkandikoo te gëm ko en principe war na mën a régler seen problème góor nga demoon wér wér mm-hmm. Pape man la guerre de baax na mm-hmm. di jàngale la guerre mondiale la lutte xaw ma pour lan mais war nañu waaw uh-huh. mais war nañoo jàngale la xew ca wér wér mm-hmm. un homme bu jógee fii janoog les mystères du surnaturel mu vaincre leen par les seules armes de la foi nga dem fële ca na Baye fekk fa les meilleurs chirurgiens du monde yoruñ paaka yoruñ couteau yoruñ dara lañ yor mooy simplement tarbiyo bu ti xol yi la ca ñuul def te lu weex nga ñëw tiwaawoon ñu lalal la malaan mu weex mi yow boo gëmee ne loolu yëpp mënul régler sa problème ay tànki muus ay juróom-ñeenteeli bëri janax ñu noo koy faj wax dëgg magique et de l'irrationnel c'est un peuple entièrement xërëmisé voilà un peuple xërëmisé par rapport ak tabaski bi surtout là on parle de ñaari tabaski bi pap ah. da dégg gars yi léegi xar ma nekkatul la mu tekki wala lakk symbolique de dévotion parce borom bi ci yërmandeem daal di ko remplacer par xar mm. mais léegi yow xar ma pap taalal rajo yeeg yi dañ naan genn gi boo ko daggee boo ko suulee nopp bi boo ko dëbee nangam boo ko defee nii boo ko takkalee diw boo jëlee ci res am na parti boo xam ne nangam ça veut dire que finalement cette pensée magique là da continuer habiter ba finalement tiyaabo ya nga waroon am ca rey xar ma mm-hmm. xërëmisation mooy ñu ngi naan boo daggee ca genn nga tuuti takkal ko nii sa doom <laughs> boo boo defee nii boo defee nii mm-hmm. finalement nous sommes la pensée magique de âme et qui pense qu'il n'y a plus de mérite, qu'il n'y a plus de compétence, c'est les maîtres tapis dans l'ombre invisible qui décident du destin des gens. C'est grave pour le peuple. Et on finit avec les mots. Professeur, si je vous dis coup d'État. Si vous me dites coup d'État, je dis malédiction éternelle de l'Afrique. Mili à être la risée du monde. Militaire qui dirige un peuple. Militaire qui dirige un peuple, ça veut dire des gens qui n'ont rien compris de la raison d'être. Échec de la classe politique. Échec de la classe politique, nécessité de réinventer une autre façon de faire de la politique sur notre continent. Si je vous dis religion au Sénégal. Si vous dis religion d'emprunt, mais qui ne correspond pas à un vécu réel. Fête religieuse comme Tabaski. Fête religieuse, prolongation de notre adepte, de notre adeption et de notre addiction au fétichisme et au khërembab. Le Le Sénégalais est quelqu'un qui semble croire, il semble être le meilleur croyant au monde, songer. franchement si je vous dis xar. si vous me dites xaar je dis obsession de tout père de famille en ce moment. mais mais côtelette bu ñu lakk rek professeur aussi. <laughs> jaar na jaar bi. merci professeur mu nekkoon li nga xamante ni moo di euh, savoir xarangoogu yàlla nañ ko yàlla baaxee ah. et puis professeur gis nga léegi nit ñi ku ci amul xar bu xar bu seer. amuloo dara quoi donc da ngay da ngay dañuy mm. d' accord ak yow rek ni mm. ñun dañoo xaw a hypocrite euh, par rapport ak euh, diine ji man ci laa bokk. Mm. yéen ñu toog ci ngeen bokk ñun ñëpp la. voilà ñun ñun ñun ñëpp la quoi. kenn bëggatul jënd xar bu ndaw dañ lay induire ci ci yooyu noonu nga xamante moom lañ gëm même boo gëmul woon yenn yi dañ la ciy indi non non loolu ci garaaw xam say bët te dem takku ji ma wax la am na benn anecdote xëy na je pas tellement parler de moi même bu xaw a doy waar Alfi ma ñëw benn jour am benn bërëb def conférence quoi mm-hmm, mm-hmm. bon am na une jeune fille daf ma gis rek na ma man yow laa bëgg nangam yaay sama papa yaa may extra xam nga rek affaire jeune fille j'ai constaté que pendant toute la conférence au mu dem toog mu ngi taxaw a li may taxaw rek uh-huh. euh, une bouteille. Uh-huh. ma xel li naan. Uh-huh. mais juste à la fin bi may paree ci conférence bi macha allah yàlla def ci barke gars yi tàccoog yooyu. Uh-huh. Euh, am benn waay bu ñëw di jël kaas bi. la jeune fii plongée alfi ci kaas bi. xëccoo ko ak moom bu tuur kaas bi. d'accord je n'ai rien compris. ma xëcc ko ne ko mais qu'est-ce qui se passe. mu ne damaa dégg waa ji ne. Euh, diw de fii de ñëw ñu ne ko waaw mu ne daal fexe leen butéel ba bu naanee ba mu des wala kaas ba bu naanee ba mu des dinaa damm làmmeñ wa dinaa fexe. dootul tëb moom kaas yi ma ne ko merci daal mais où t on oui où va ah, franchement voilà. donc finalement arme de mooy fétiche xëremisation c'est dommage et c'est dommage en tout cas lii moo tax sa am solo ci yeewu bi altine bu jot ci pàcc bi ñu tuddee euh, savoir ngërëm ñeel la euh, professeur Songué